ndax ñun ñëpp xam nañ doomi dëkk bi lañ lépp lu dal ci dëkk bi dañuy naqari yàlla dogal na tamit en tant que président de la commission santé affaires sociales du haut conseil euh, fan yëpp maa ngi ciy waxtaan ak président du haut conseil muy euh, soxna Aminata Mbengue Ndiaye ma ne ko euh, ginnaaw bi nga xam ne joxe nañ segu 20 millions francs CFA au niveau national jox ko ministre bi ma ne ko kat bu ma sañoon Touba kat man wax dëgg yàlla daf ma daf ma daf ma dafa nekk sama xol te feebar ba moo ngi fa di lëmbe bu ma sañoon kat wax dëgg yàlla. da ngay seet noo ci mën a jàppee ndax ñu mën a dem ca ca ca dëkk ba wax ak nit ñi sensibiliser leen ginnaaw bi président Macky Sall euh, joxee ndigal euh, ñu ko ci sant di ko ci gërëm di ko ci féliciter ndax jël na ay mesures yoo xam yaakaar na tey ji moo tax feebar bi mën di dellu ginnaaw ni ba mën koo daan parce que feebar bi nekkul ay slogan du ay mbot du ay faqat du ay kii parce que feebar bu taxoon kuñ ne song ko doo ko kon boog du ay slogan euh, nañ bay slogan yi te ñaan ci yàlla xam ne li natt la boo xam ñëw na Euh, ñu ñaan yàlla yàlla dimbali ñu natt bi mën a dem parce que nag yaakaar naa loolu rek la moo gën ñuy def ay slogan bi ma ci wax naa ne président doo pare mu ne ma ah Matar loolu duma ko waaj moom tey mu def geste bu rafet yëkkati lépp loo xam ne muy loo de matériel muy eau de javel ak euh, madaar ak gel lépp ci quantité bu am solo mu ne nañ ñëw àndul ko tey préfet ah, avant muy doon président au conseil ñëpp xam nañ ne njaboot la ndaxte jigen la jo xam ñepp xam nañ engagement bi nga xam mom la am ci Sénégal motax bima ko waxé rek daf ci d'accord vraiment ñoo ngi ko ci sante diko gëreum ci yitté gi nga xam Touba ñor na ko. waaw loolu nañ ko ndaxte feebar bi amatul lu romu nañ ko ndaxte bu nga xam ñew nañ ba nga xam ne général des mourides yëk 200 millions teg ko ci table ji ñu ñew tay ji ba euh, présidente institution Aminata Mbengue Ndiaye joxe 20 millions joxe wat ay matériel fi ci biir dëkk bi ñi nga xam ñoo doon wax feebar bi ñu wo len déglu leen ñoom ñëpp delluwaat nañ ginnaaw feebar amatul moom loolu leneen la ñuy wax léegi lan la ñuy def mooy nan la ñuy def ba feebar dellu ginnaaw feebar dellu ginnaaw mooy mesure yi président jël surtout ñoo ngi koy saluer ñun en tant que haut conseil ñoo ngi koy saluer en tant que doomi dëkk bi bu ñu defee bu ñu respecté ko waxee di raxasu mu set bañ di moytu rassemblement yi moytu di di di ci mbumbaay yaakaar naa yàlla mën nañoo defal feebar bi dellu ginnaaw boo xoolee ci biir demu ministre joxe na exemple ñaari exemple moo am euh, mooy tubaab bi tubaab bi affaire bi bi virus bi daloon bi bi mu demee ba sentir ay symptômes dafa dem tëju biir néegam daq waa këram ne ni ñëpp ñu ñëw fekk ko fa euh, tëj ko faj ko ba mu wér dara xew Modou Modou bi nga xam ne moom moo ngi fi dafa ñëw toog ci biir njabootam di lekk di naan mais contaminé à peu près plus de deux dix neuf personnes. feebar bi am na nañ ko moytu ba nga xam ni euh, li fi lim bi fi am. ndax lim bi mën a dellu ginnaaw xam nga loolu day day naqari nit koo xam ne ci àll bi la jóge wala aw yoonu suuf ñëw laqatu foog nga nekk un républicain wala nga bëgg dëkk bi wala nga bëgg réew mi nga ñëw signalé wu man maa ngi leen di wax ne rien n'est trop tard feebar du complexe ni gën a grave ñoom ñuy laqatu ci la gën a bone ci ñoom nañ gaaw ñu signalé wu le plus rapidement possible nañ dem wane wala ñu woote si kii euh, euh, numéro yaa ngi fi numéro vert yaa ngi fi bu ñu wootee de bu ñu wootee même bu ñu tëjoo dana leen fekk ba fi ñu tëju Euh, faj leen fa bañ wér te da ngeen duñ xam dara jëlul ñu rus numéro vert yaa ngi fi boo demee ba am njaboot ñi ñu yaakaar ci yow nga dem bitim réew nga xam ne seen adduna ak seen yëpp ci sa loxo la tege waratoo am complexe ñëpp ñi nga xam ne aw nañ yoonu suuf ku ci dégg ku ci am yëg benn symptôme wala benn mbir boo xam ne euh, gis nga ne lii xaw nañ nuroog jàngoor yi ñoo ngi wax ne nga nga nga nga woote ci numéro vert yi yëglu ñi ñi ñëw faj la moo gën ngay nëbbatu sinon fi mu jëm da dul baax di wax ni ngeen wax vraiment euh, la présidente soxna Aminata Mbengue euh rafetlu nañu ci action bi def nako au niveau national ñeu def ko aussi au niveau local seigne Matar euh, ndimbal bi amna solo waaw dañu def dañu ko utiliser en bon on va en faire un bon usage inshallah dañu ko tek fuñ ko wara tek jox ko ñu ko war jox mu mën dem ci askan bi ñu suivre len ba nga xamé ni bi dal machallah fi fii Touba dañu sentir que ni Covid 19 ñu ngi koy battre. jàngoro bii ñu ñëpp ñu ànd mobiliser wu rek ñu daan ko te bu soobee yàlla daañu ko daan daañu ko daan ba ñu mën a dellu ñu ñëpp suñu ay ité di di def suñu ay activité normal loolu lañuy ñaan yàlla yàlla yemale ko fii rek. dafa mel ni geste bi moom day nit moom loo nga xamante ni bii lépp yow la lépp ci sa biir la day jafe waaye yëg nga xamante ni bii eh, présidente conseil. Euh, des collectivités territoriales yëg na ko jaarale ko ci suñu mbokk mi di sëñ maxtar Diop mi jaarale ko ci moom. di gën a ñaaxaat nag population yi ndax mbir mi moom euh, mbir la moo xamante ni ñun ñëpp noo koy dund li nga xamante bi mooy ci am day am na mbir ñoo xamante ni bi buñ ko déggee danañ gëm ni mbir mi am na am na ñoo xamante ni bi loolu lu leen mbir jigéen jigéen boo leen ko waxee feneen la ñuy nekk. waaye li gën a am solo mooy réalité bi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci teg seen bët kenn mënu koo nii ndax lu am la loo xam ne li ñuy ñaan kay mooy ci yàlla baaxuk cheikh muntaxa mu ñaanal lu ba yàlla yemale ko fi di leen gërëm yéen ñëpp di leen sant di remercier le préfet euh, ci taxawaayam ak xeex bi mu ànd ak askanu di ko xeex pour coronavirus jóge fi kon lii nga def tey initiative bi yaa ko yaa ko indi yaa ko ba amita ngi jàppale ci kon ñu ngi lay ñaanal euh, di ñaanal ñëpp yàlla dolli ñu jàmm euh, Sénégal jëm ca kanam